Bombardier ak Eumeu Sène bëri woon nañu Eumeu Sène daan ko tey ñu war a bëriwaat dimanche bi ñu jëm. waa combat bu neex la na mu combat ba la neex woon rek ba bii noonu lay neexee ñaari naataango lañu wax dëgg yàlla am nañu expérience bu mag si làmb ku si nekk nekk nga roi wax dëgg yàlla combat bu neex lay doon bëri la gis. kenn du si gis koo xam ne kii dafay euh, nu mu ta di topp di euh, di di caaxaan daal ñoom ñaan yëpp li leen xamee mooy sportivement bu ñu ñëwee ñoom dañuy joxe seen bopp. nañ joxe woon seen bopp sa combat bële ba di ndam am bii paa it noonu la ñuy seen bopp ba ndam am kenn kenn du si caaxaan waaw. waaw mais papa nag seetlu nañu arène national bi bi ñu ko tijjeeg léegi. combat yu mag yu bëri yu fa am yoo xam ne que da ngay gis mbër yi dañuy ñëw téye seen bopp ba arbitre souffle fin ku ne dem. waaw ça dépend rek Euh, ça dépend parce que Bombardier momit mom defuko bon Eumeu tamit defuko donc ñu li ñu xaman ñima xam rek <laughs> mais yeneen ñi xam ni diñ ko fa def tamit ba ji wax comme Bombardier nga ma wax strictement te donc ñaar ñi boo premier combat dañoo joxe ba lii ma lay wax tamit moom mooy bu ñu ñëwaatee nag bu temps d' observation bu amee ba pare rek foog ñu def temps d' observation tuuti waaw benn cinq minutes mais bu temps d' observation bi jeexee rek di nga gis combat bëri bëri bëri bëri ngay gis incha allah. yow encadré nga mbër mu ñëw daje ak bombardier est ce que bëri ak bombardier yomb na. waaw bëre bombardier euh, yombul parce que bëre bombardier comme ni ma waxoon sànq rek ñun du ñëw du juddu champion bëre bombardier biñ ko jëkkee présenté si fii si Iba Mar Diop. Euh, Yéri Jaxate di ko présenté keroog laa ne champion ngi ni ker bu mu jëkkee teg tànk Iba Mar Diop gos mu ko gis muy bëre mais jëmm ji laa gis mu taxaw euh, parce que tamit bind tamit dafay am bind bind champion dafay am ker bu mu ñëwee laa ko laa ko laa ka jugé daa ne champion ngi ni waaw san dara di am wax dëgg yàlla te loolu <laughs> confirmé woonu nekk na champion ah, bi si des na mooy bëre Bombardier euh, wax dëgg yàlla dafa mun bëre <laughs> dafa am fit dafa am doole ah mën na bëre mën na xeex ah lépp lu ñu bëgg si mbër daal am na ko mat na mbër wax kon nag kooku du yombal du du yomb bëre waaw foog nga am man manin bu bari bari bari pour pour mun ko mën mëne ko daal daan ko waaw. Eumeu Sène nag. waaw Eumeu Sène nag dafa nekk tamit xale boo xam ne bii dafa xarañ si bëre waaw dafa nekk daal nekk international ah, si euh, équipe équipe nationale du Sénégal ah, yàgg yi bëri mbapat fu nekk bëri façon bëri boo boo xalaatul rek. Euh, dina koy def loolu ko bëre googu nekk si moom nag bëre googu moo ko mayoon mu mu mu mu daan mu mu daan mu daan Bombardier kon nag noonu mu ko daane woon tamit bu Bombardier sàggane tamit da ka da ka kay daanaat rek. yow ragaloo jee ñëw indi xeex bu saf-saf. ah Bombardier foo jaar mu xeex parce que mën na xeex. waaw bëri bëri nag moom il faut nga indi xeex bu saf sap waaw bëri moom il faut nga dóor wàññi nit ki parce que dafay ànd ak dooleem di ànd xelam léegi nag boo ko jaxa boo ko dóoree bu ko kurpañ bi dalee waaw xel mi nag day nekk ñaar daal di jaxasoo donc foofu nag foog te Bombardier <laughs> doon mbër te du la te te li mbeneen mbër sin mbokku mbër mi dama wax foo jaar mos il faut nga mos waaw. mais yow kuma Sène est-ce que xeex bi arrangé na ko ci combat bi. ko doon indi loo koy digal. ah bi ko doon indi li ma koy digal rek mooy mu jéem a jéem mu jéem mu jéem a mbapat rek waaw parce que tamit moom tu xeex xeexam moo am défaut ko daal Eumeu Sène boo koy jugé xeexam mooy défaut parce que buy dóor dafay ub loxo yi day ubbeeku donc te foofu loxo yi ubbeeku waaw day laaw te loolu nag baaxul si moom parce que euh, dañoo euh, bokkuñu bokkuñu ñaari tànk ñuy jiitale kii day jiital gauche yi jiital droite te kii di jiite droite nag mooy mooy gën a am avantage que si si si si maanaam Bombardier moo ëpp avantage si dóor yi si euh, si si Eumeu donc man bu ma ko doon sant xanaa li ko nekk mu bëre mu jéem a bëre waaw mais pas jéem a xeex waaw mais nag ñi mosante bi du si ñàkk waaw fu ñu si kurpañ soog a fa mu làmb ko mos ko ñuy soog a soog a song waaw. voilà jërëjëf léegi papa. naka nga jàngatee làmbi démb ak làmbi tey fi làmb ji toll.